yàlla moom moo dogal dogal goo xamante ne nii xam nga feebar dafa metti ba mbër laa jëkk xam ba mbër nekk sama xarit xarit laa lay wax waaw du dugg ci lu ma waxul lu muy def ci làmb dina ma woo bu signé combat balaa moo ko wax kenn dina ma woo ni ma signé na wala ma fekke ban koy signé lépp loo xam mu ngi ko doon defit ci digganteem ak frère wax na ma ko

mu dem bi mu ne bi mu ñëwee itam ma woo ko ne ko Pape Dia am mu def mu ne ma ah âge ah, feebar bi di reculé wul ba ne ko ah mu ne ma reculé wul de ci dëgg-dëgg bu dee waxtaan wax dëgg ci la rek teg na lépp ci loxol yàlla waaw teg ko ci loxol yàlla ba yàlla ñëw na e àdduna nag nii la mm-hmm. waaw dañuy dañuy rek il faut ñuy toppante mm-hmm. yàlla na yeex waaye ku baax dem na ku bëggoon làmb dem na ku bëggoon frère am ku ko jàppale ku ko yërëm ku ko doon xool bëtu yërmande Pape Dia bëtu yërmande la doon xool Bombardier waxuma la bu Bombardier daane mhm. waaye bu Bombardier daanoo ba mu ñëw ci géew bi ba lëng ko mhm. boo xamee diggante magarak rek sa yaram day daw waaw ma xool ni ko doon protégé mhm. ah léegi adduna nii la nag noonu sant yàlla rek ñu ñaanal ko ñaas bi mooy lii mbooloo bi teew fii ah, ku sañoon am boo fi jógee yal na yeex nga am mbooloo mu toll nii wala bu ko ëpp